ñu koy seetaan te ñu waroon cee jël ay décision because ECOWAS foofu la ñu leen de xaar. waaw mel ni kon yow génne ak Côte d'Ivoire li leen war a sanctions immediately génne leen ci ECOWAS génne leen seen ay mbir ku ne leen yéen comme danañ da ngeen salfaañi seen luwaay réew a def li nga xamante ne mooy seen seen individual interest bokkatu leen ak ñun. waaye loolu defuñ ko. waaw loolu suñ ko defee ah. ñaar ñaar ak ñett ñoo faa mujj des. bu su ñoom ñëpp a yem they are all the same naa ne suñ ko doon def léegi tey mu jeex ñaar ak ñett kon African Union mooy des waa ñaar ak ñetti président ñoo faa des amuñ date mandate amuñ right si constitution yi jàmbur bu taw dafa waroon a nekk amuñ right si président bu war a dem ceeñ constitution pour def lu ko féebo te lu waroon a nekk la moo tax ma la mbootaay gi amul doole. su amoon doole dafa am sañ-sañ boobu dem na ba luwaa yi non dama laa dimbale tuuti mhm. luwaa yi ñu nangutoo mhm. sax yow par exemple ñu ngi laa wax ne sal réew mun nga am na sart yi ngay doxal bu neexut waa réew bi for exemple mun nañ ñoo challenge réew moom for exemple xew na Sénégal ma jox exemple parrainage bi dem nañ ci ECOWAS code bi ñu challenge ko fa ñoo ñu ne leen lii ne seetaat leen ko léegi léegi fan la mujj exactly problème boobu dañ ko war a Sénégal ne dañ ci àndut ñu ne ñoom dañ dañ ñoom moom seen bopp léegi fan la mujj léegi nag bu ñu demee moo tax ma ne leen est-ce que kon ECOWAS bi lu ko laal dégg la non du dégg mun naa la wax du dégg because bu doon dégg am na lu nga xam ne mu mënuñ ko si réew seen mandate moo des te du mus a Amadou man mu mun a ñëw wax la si dëkk ñëw ECOWAS ñëw contrôle Gambie wala contrôle Sénégal ne lu askanu Sénégal bëgg si constitution bi loolu mooy am amul date mandé te loolu buñ ko amul nu ñëw régler dara xam nga lu ñu mun dajee nii rek sanction daje waat génnee sanction loolu leen mun bot yow sa doxali nii réew amul si sañ-sañ ba mun a tey ñëw tere laa def li nga bugg a def si sa constitution kon ana ana ana ana njëriñ li su ko defee bu soldat jógee fa la ñëw jël soo ñu door a jóg sol seen lifin ñëw this is the problem te tam duñ dee calculer. this is duñ mooy problème bi. ok am na solo duñ dee calculer. waaw loolu mooy problème bi de. doy na amuñ sañ-sañ bu dooy amuñ 100% sañ-sañ ci réew yi. Mhm. réew mu si nekk nu la nee nga doxalee ba toog fa wala ba continuer. so loolu kan lan la. waaw dañoo wax ECOWAS ECOWAS. exactement seen recommandation. waaw kii su bëri gars yi dañ ko def sànni fële te du mujj fenn. waaw du mujj fenn tax réew moom loolu moo ko gënal. mu da tëggal loi am nu mu ko neexee dem élection mhm. soo te te loolu mooy continuer di am dafa continuer di am tey dafa continuer di am yële te am na si lu si ko gis est-ce que bu mel ni because for exemple Gambie gis nañ fii ay ñu dem ay Gambien si dem si ECOWAS code bi dem foofu noonu against nguuri nguuri Gambie ñoom ñu am ci ndam li ECOWAS wax nguuri Gambie def ko est-ce que kon nekku réew yi ndaw yi dañ nekk jël advantage no sometime but when you come to uh, uh, lu gën a jëfeñ waaw loolu laa man. am na yeneen areas dinañ ko de nangu ba soo ñëwee si affaire yi toog ak jóg xam nga loolu mooy problème yi. waaw foofu am am tolloo ñu xëy na exemple. waaw ñun amaguñ loolu xëy na déggaguñ dem. loolu xëy na Sénégal waaye ci yenn décision yi nga xamante ne Gambien si dem na ECOWAS code bi ñu am ci ndam Gambien government bi waaye uplaaj doole la forcé la pour ñoom ñu nangu loolu. xam nga ko defoon nañ ko. xam nga léegi waaye yeneen réew su fekkee ne ñoom na xanaa dayo bi moo tax ñoom ñu ëpp par exemple. Mm. réew yu mag yi ñoom bu leen neexee ñu ànd ci bu leen neexee ñoom ñu doxalee lu leen ñu na war doon mu ndaw. waaye ECOWAS suñu nee ECOWAS waaye dafa mel ni. Mm. Mm. Guinée Bissau problème am na fa dem ñu réglé ko. Ah. Gambie loolu moo xew fii ñu ñëw Gambie par exemple ñëw ñu réglé situation bi ñoom ñoo ñëw. Mm-hmm. waaye yeneen réew yi Guinée gis nañ ko Mali ak ak Burkina Faso xalaatuñ ko sax ay sanctions rek lañu yaakaar. ay sanctions bu mooy ne. Euh, right now si nekkoon ECOWAS yoon rek la ñu di bañ ay mandate yi bari réew yi nga xam ne seen constitution dafa amul tam tam limite nekkul fa waaye nag ñu dugal si seen làmmiñ balaa dara di xew ba doo ko dégg wel Gambien si am na ñu dem ECOWAS recommande am na lu ñu dox ECOWAS mu nangu ko ba ñun suñ constitution bi right now Adama Barrow mun na fee ñaar fukki at ñaar comme li fi Yaya Jammeh toogoon léegi nag su passé tout tamam bi Gambien si ne du ko fi defaat te yoon may ko ko coow lu muy ko te ñoom ñu ngi ne teg xool loolu waxuñ ko moo tax ma ne la ECOWAS mbootaay la bu nga xam ne ni amuñ indépendance seen mandat bëriwul amuñu raay ci réew yi jàmbur réew yi jàmbur boobu nu ko neex la moo doxalee mënuñ si dara. Ah. soldaar leen yeb nag dina jafe am nga ñoom lu ñu yeb soldaar leen yeb bu soldaar ñëwee jël réew <laughs> door a dem teg dool teg der si kaw soldaar bu te in fact réew mu jaxasoo soldaar boobu leen yaakaar pour mu dem régler système boobu nag loolu mooy problème bi suñu waxee ne amuñ amuñ amuñ doole pour dugga si dëkk yi. Ehm, jàmbur waaw ci waaw waaw joxe fa dogal wala. war nañ moom war nañoo mën a am dogal war nañ duñ mën a am dogal sax waaye dinañ am kàddu yu nga xam ne suñu waxee borom maanaam njiiti réew si réew mi dina déggal lu ñooy wax. Ah, boo ko déggee te jëfewuloo daf ko war a jëfee nag su fekkee ne mbootaay bi comme ni nga ko waxee ñu ngi oote ne mbootaay bi pour West Africa countries yi la. Mm. war nañ koo dégg. waaye dañ ko du def. war nañ koo def dañ ko war loolu lañ gis ne nekku di am. waaw loolu nag loolu lay wax nii dafa war a am. waaw lan li ko war a am tey bu fekkee mu am lan ñan nga jàpp ne ñoo war a tax ñoom ñu am. mooy leader si yi dem tey leader si ga akra di ko mm-hmm. di di ci di jël ay dogal waaye ñoom seen bopp ñoom ñooy salfaañeer waa régulation yooyu wala bañ cee ànd par exemple tey al time boobu Alpha Condé moom moo jiite woon ECOWAS at ñu seetaan ko mu dem mu mu ciñ constitution bi pour bugg dem taataam. Eh, ba pare la parce que xam na ne li fa nekkat ko fee ko non loolu la because résistance moo am. waaw ceeb ñoo ñoo ci dem bañ. nga dem Burkina moom mu dem président bi non so waa euh, Côte moom mu dem ba déclaré ne du demari taataam léegi moom ki mu tànnoon pour mu kooku uutu ko kooku yàlla jëlee ko fi. mu dem mu seet mu ne Côte d'Ivoire moom kooku rek la yaakaar ko mun a uut soo moom dafa xàññewaat can you imagine daal ñu seetaan ko. ñu seetaan ko. mu ñëw mu ñëw mu dem tataam mu win mu ceeñ ko si suuf te danañ si beneen dara te ñu ngi nii Sénégal ñu ngi ko laam-laame ECOWAS nekkuñ di ci wax danañ si daal te waaw moo tax nag ne mhm. moo ñu jox taam limit wax léegi léegi ñu ñu issue statement di nga yow doo fi mën a nekk ma doo fi mën a di aaye président bu bañ a dem taat mandat mhm. nga bàyyi président bu nga ne mun naa dem 20 mhm. loolu rek la mënul léegi bu ko nga ne Tade Mbende du fi am. Ah, Togo moom ngeen koo tere. Ah. nga gis réew mu nga xam ne nii président mën na faa toog junne at. yow réglé loolu nga bëgg a réglé Tade Mbende. te foog naa war nañoo war nañoo des na si boobu sax xëy na ñu Gambie mm. daanaka seen doole. thank you sori ci bu baax. parce que tey ci doomi réew yi ñun ñun exactly ñun fu nekk nii. mënuñoo wax ne ñen nii ngeen di teggee seen compétition. xanaa kay mun lañ wax ne fexe leen ngeen gos ñun yëpp dañ bugga nguuri ñu ne nguuri Gambie eh fexe leen ngeen liggante lu ñoo amee li ngeen di amee temps limite comme yeneen réew yi waaye gis ne Gambie saay na loolu waaye réew bi ni comme Sénégal nan duñ ci ak ak ak Togo ak Côte d'Ivoire ñoom ñee la ñoom non. te ñu ñooy ponkale ñooy ponkale. waaye Amadou ni ñu ni ñoo def ba sanction euh, réew. waaw war nañoo mun a def noonu ba régler situation yi nga xam ne mu ngi am si yenn réew yi. ci naka. parce que mbootaay lañ. ma foofu la ñu. pour nga right now right mbootaay bi right now su ñëwee ne sanction nañ Macky Sall. Mm. Ah. xam nga kooku dañ ko jox indépendant pour mu doxalee ni mu ko neex pour ñëw taat mandé. anta loolu loolu dafa xappul eh, Sénégal mais pare sax loolu. jarul sax wax ju bari. ñu bari dañ jàpp ne sax kabudu moo nekk ci biir. non loolu dafa xappul Sénégal dina dafa ci ECOWAS waaw am na yeneen président yi luñ bugg daanaka loolu mooy loolu mooy am te bul fàttali ne lu ñoo wax ne léegi léegi réew yëpp a am loolu ci wax kat daanaka ci kàddu la rek mhm. mm-hmm. parce que tey ñu bari jàpp ne ku mel ni comme Sénégal et euh, Côte d'Ivoire ak Nigeria ñoom Ghana daanaka. luñ bëgg rek ak ak time boobu Condé sax. exactly luñ ah. daanaka luñ luñ luñ bëgg rek affaire noonu lay doxee. noonu mhm. ah, parce que dañoo seet ñoom li leen lu leen intere rek. Mhm. ñoom foofu la ñooy jublu. that's the problème parce que faate ñi nga xam ne ñu ngi seen gannaaw ñu ngi seen ron. parce que euh, suñ jëlee dika ñu sanction ko ñoom duñ ci coon soona de. baadoolo yi ñi nekk nga xam ne ñooy nekk si gannaaw ñoom ñoo see gën a sonn foofu laa bëggoon a ñëw ak yow sax parce tey lan nga foog ne xëy na lii mun naa eh, yokkal Mali ak surtout nit ñi nga xamante ñu ngi fa woon di sonn gis naa ay jigéen tase ak Macky Sall eh, mag ci umra di ko ñaan na fexe ñu teggi sanction si ba ñu ñu ne na taxaw mu déglu leen mu taxaw hmm. ñu ñaan ko foofu bu xam ne ñu ne ñu sonn nañ tey bu ñu demee ba teggi li nga xamante ne mooy sanction si si kaw Mali ak situation bi fu mu toll ndax mën nañoo xaar at least loolu nit ñi tamit kontaan ci ak tamit mun see gis seen bopp seen wàllu dundin ak xëy na ci lu ñoo yëngu tamit parce que métti waaw bu baax hmm. parce que ku xool euh, Mali Sénégal Mauritanie Gambie Guinée hmm. yëpp ay borders dañ te dañ dee demalante ñëwalante Sénégal lu si bari seen demalanteek Mali daanaka everyday la mun nañoo wax lu bari la sax waaw hmm. so dina waaw dina dina dina miiti ñu war jël loolu yëpp kale ko duñ seet ñi nga xam ne ñoom ñoo cee gën a ñoom ñooy ñu ñi nga xam ne ñooy dem ak ñooy dem ak ñëw parce que ñoom ñu ngi toog fi ñu toog fu leen neex ñu dem utee naa ki nga xam ne nag moom dafa yaakaar pour jàll dem si beneen euh, booda pour njëriñoo fa wala pour jëlee fa li nga xam ne loolu la mooy dundee mm-hmm. ak yow mi nga xam ne fi nga toog sa everything mu ngi ok sa everything mu ngi le mm-hmm. nañ dee bàyyi xel ñooñu noonu tamit dina dina dina métti si ñoom waaye tamit fu mu nekk nii comme que teggi nañ ko mm-hmm. dina leen kontante la parce que imaginal jamono bi ñooy waxee nii rek ñu ngi wax affaire yi xar amut waa xar amut mm-hmm. su fekkoon ne teggi wuñ ko naka la doon demee te demte ne sax mm. euh, sanction bi génne wuñ ko woon mm. soxla nañ ne luñ soxla mu ngi ci Mali fexe nañ benn mm-hmm. négocier ak gars yi waaw ñu ubbi bunta bi pour xar yi ñëw waaw parce que ay ponkal ñoo fa am waaw kenn jiitu si hundred percent interest la am si Mali te loolu dafa dafa flot ba Gambie fii de ko tey soo gisee tey saxaw mboq mu ngi seer mm-hmm. Mali seen mboq ñëwul ah. seen dugub ñëw te ñoom loolu dañ ko am dañ ko am ak diwtir yi nii ak diwtir loolu moo gën a tax tey mm-hmm. saako mboq dugub tey seer fi seer mboq moo gën a seer dugub right now mm-hmm. waaye léegi suñ ko ubbee ñoom seen ñebee yëpp dugga si nu bu duggee Sénégal dafaa dugg si Gambie. Mhm. dugg ay Lume Bureen. dem Guinée mhm. yooyu noonu ñun tam seen suñu gars yi dem ñëw indi ko suñu mhm. syndicat yi. absolument soo di seen Gambie sax daf ko féel. soo moo tax ubbi bi ñoom dañ tëj ba pare di bëgg a dee. moo tax foog ñu ubbi ko moo li nga xam ne foog ñu ubbi ko because kon kon kon kon li Amadou di wax moo dëgg la kon mooy ne kabulu kabulu bi fa nekk rek lu ñu bari soo waxee nekku fa waaw dëkk bu nekk sa bopp yi si waaye amuñ prop amuñ mandate si régler constitution yi jàmbur yi dëkk this is the problème moo tax duñu am mandate pour régler te lool tubaab bi sax amuñ ko. non but mandate yi tubaab bi sax dañ amul loolu. non xëj na mandate bang fa wat but xëj na. Ah, ah, ñoom ñoom duñ ko xam nga seen mandate. xam nga si ay kayit. comme léegi nga ne yaa ngi ceeñ constitution bëgg a dem askan bi bañ. ñu oote mandate comme ni ñu seetaan la waaw ñu seetaan la ba nga jàll time boobu duñ si wax mhm. dara duñ intervenir ñëw ñëw na la lii du fi am soo bañee ñu indi ay soldat xam nga loolu duñ ko man mm. bu ko soo ko defee tam réew mi dafaa jaxasoo mm. loolu mooy problème bi am na réew bu leen si ndax moom depuis bu mu ñëwee si nguur gi fajar la dem def référendum dugal ko ne teg time boobu mais bi waxuñ sa waxee ECOWAS te buñ si àggee da ko dégg c'est constitutional right dañ laay wax dëkk bi yii Sénégal ne ko dégg lu ma la wax te ECOWAS duñ si mun dara. kon si mun dara ñoom luy seen njëriñ léegi léegi est-ce que maa dafa am dana am njëriñ su fekkee tey ECOWAS ñu ñu bari ci Afrique noonu lañ koy xoolee ne euh, mbootaay bi daanaka nekkal fa askan bi. te tey ndaje yi ñoo def nii yëpp xaalis as si xaalis askan bi lañ koy jële dem di ci dépense di ci lekk di ci di ci mbumbaay because tey bu yàggu rek juun lañ lañ fi jógee. Mm. président Barrow demoon na demaat na comme nu mu demee moom njaataagoam bi ñu ngi fa woon tey ñu jël xaalis ni ñooy di fa dem di daje di ci waxtaan li nga xamante nit ñi duñ seen gis seen bopp est-ce que loolu tamit lu gars yi di wax ne du jël otage muy advantage ci kaw nit ñi tamit parce que ñoom ñoo nekk ci ah, donkaas jël advantage la kay parce que yow euh, suñ ootee ndaje nga dem te soo ñëwee doo indiwaale dara ban njëriñ la am. Hmm. kon dafa mel ni yow yaa ngi yàq paas yaa ngi jël xaalis yi baadoolo yi di ko demee di def lu la neex. bu gën a seer nga ngay jël dem tëdda dem tëdda fu la neex lekkal lu la neex. jël taxi ñu ne loolu duñ ko waaw soo nit ñi ñoom ñoo ci ñoo ci gën a sonna ECOWAS nag suñ waxee ECOWAS moom ah na am bari na njëriñ xam xëy na am na njëriñ tamit waaye buñ em rek si. pen ak paper wala si kàddu rek nañ ko jëfee nañ ko jëfee ñi nga xam ne tamit ñooy citizens yi ñoom tam ñu mun see gis seen boppa ñoom buñ jóg rek ne ñu ngee dem attend meeting for the sake of attend meeting rek wala nga ñu fay la rek nga dugal sa poos déedéet li la fa yóbbu alis soo leen ko meetingee nga ñëw doxal ko sa biir réew foog naa loolu moo gën a important waaye dem di attend meeting yu nga xam ne dangaa ñëw rek mooy loolu toog ci doy na waar léegi léegi léegi moon ñang ci ci junta bi wala ñoom moo woon Euh, lan ñu war a mën a xaar ci ñoom ñoom léegi nangootu nañ ne within 24 months fii ay March 2024 dañoo dem élection fexe démocratie du dellu waaye situation bi ak Mali lu fi mu toll est-ce que euh, dañ xëj na xool ne jafe-jafe na seen nit ñi ñu nangutoo ak ECOWAS euh, parce que nag ñoom daanaka ñu bari jàpp tam soo gisee ECOWAS mooy ci dañ amul indépendance dañ na lu leen naqari mooy lu dal France ci Mali lu ñu leen génnee dëkk bi France tamit loolu naqari leen jaar ci ECOWAS yenn ci leaders yi impose leen ba tey ñu euh, place embargo wala di def sanctions ay Mali est-ce que tey junta bi euh, ci in reality ñoom mun nañu organise within euh, within this period mun nañ ci def élection yu jaar yoon ci jafe-jafe yi ci lu ñu leen sanction ay millions si xayma dollars lañ ci ñàkk waaye tamit insécurity mooy ñàkk dal bu nekk ci dëkk bi right now est-ce du doon baax ECOWAS waroon leen gunge jamono ji ci lu ñu leen sanction kon ñu ngi leen doon gunge di leen dimbale ba sécurité yi ñu ñu overcome yena yena yena jafé jafé ñu mënon na dem élection ci ci ci période bu gatt nda mën nga gis man nga yow gis nga ne ci diggante bi mën na ñoo wajjal élection ci ñaari at. fexé mu jaar ci yoon waaw yé man gum na né war because légui ñaata at ñom ñu ngi fa. Hmm. depuis ñi ñëw ak légui uh, yaay ci nga. yaa daanaka biale yi yéen naa parce que affaire yi. almost waaw su ëpp waaw because tam affaire tam waaw affaire tam mo ngi and ak jafé jafé et puis buñ ko ak ba légui jëlee ba parce que am na eh, sécurité problème buñ fa nekk di dund am na lu ñu si defar. gos la ko gënoon a koos loolu français yi si leen bokkoon du gos seen kowaare boobu noonu. waaw lu leen baagoon moo doon français yi fu mu nekk génne leen fa. te xam naa dinañ gën a recover seen dëkk yi amoon problème pour indi ko but in beneen 24 months buy ñëw war nañ mën a régler seen situation sécurité bi réforme ko bi nga xam ne ni fu ñu yaakaar noonu ragaloon dinañ ko mun a dem sàmm ko bi nga xam ne eh, jàmm dina fa dellu si ba askan ya fa dëkkee mën a delluwaat si jàmm ña fa dëkk amee ay nag. dund ak seen nak si jamm ña fa dëkk amé seen xar dund ak seen xar si jamm du gos ci time dañu ñëw fagagal dëkk yëpp mhm. seen nag yi ba légui mu ngi am nak mhm. so lolu isé problème way anyway gum na né kon que ñom xeyma nañ ba indi 24 mhm. months pour gis né war nañ ci mëna organize election so na dem because ñom tam pour réew mi gëna am sécurité fo ñu dem ci civilian government dem soldat yi dem dellu ci barak ci den mëna sam karangé li nga xamné moy réew but li problème bi ñom suñ fa nekkee daanaka lu ëpp président bi la ñoo topp bu ko soldat moom fu ne réew mu ne ne eighty five kaaraange gi yëpp boppam la ko jóor soo nag waaye bu ñu amee président ñoom ñu dellu si baaraak si dañ dellu si booda si uh-huh. den régler seen sécurité dëkk bu loolu mooy seen mandat. te loolu leen saay noonu pour loolu la xew Burkina Guinée hmm. moom ñu ngi négocier. ak ñoom gos ñoom nangooguñ ba léegi joxaguñ benn période te ECOWAS jox na leen fii ba balaa weer bi di dee. Hmm. nañ fexe ñu nangu ñu wax leen. mu ne buñ ko defu dañ leen di daanaat ñoom tam dañ leen di sanction. waaw naa fi léegi 24 months war ne mën a réguler dem élection. Hmm. ku fa yàlla teg. ñu jàpp ñu ñu def ko boo ñoom dellu nag pour maintain hmm. sécurité gis ne am na seen dëkk exactement léegi ma euh, Mali xeej na situation bi léegi nit war nañ cee mën a am yaakaar Burkina di same thing waaye Guinée defi leeragul parce que junta bi ñoom waxuñ euh, kan lañ bugga dem élection so ECOWAS ñu ngi leen jox ñoom tamit déet fii ba balaa weer bi julaay bu dee nañ fexe ak seen médiateurs yi ñu nangutoo ak euh, time frame fi nga xamante ne fi lañ war a dem élection bu loolu amul hmm. nañ leen sanction bu boobaa bu fekkee ne sanction amaat na comme ndax njëriñ dina ci feeñaat bu baax ak donte ne tegg nañ bu male bi. ban njëriñ moo see feeñ lu du coono rek yokk beneen eh, coono rek parce que comme ni ma ko dee waxee rek réew mi ñoo see sonn. ak ñi nga xam ne ñooy jëflanteeg ñoom. waaye man fi ma waxee rek mooy ECOWAS eh, balaa problème di am nañ faral nañ di wax ak njiiti réew yi. Mm-hmm. ba pare njiiti bu ñu dee seet seen own interest. parce que lu demee ni eh, yow suñ tëjee sa booda yaag sa beneen néebu yow sa interest su jotee di nga dem pour négocier pour seet ban bunta ngay mën a jaar pour ñu génne loolu. Mhm. parce que yaa ngi on seet sa own interest seetuloo beneen dëkk bi wala beneen réew tamit own interest am balaa loolu yëpp di di xew ñu jaar si yoon ECOWAS tamit ñuy xam naka la ñoo doxalee seen mbir yi buñ toog rek di xaar ba problème am ñuy sog a jóg di ote ay miti nag yu nga xam ne du mujjee fen balaa problème di jóg wax ak ñiiti réew mi mhm. teg leen si yoon dëgg la suñ amul kaddu si réew mi sax waaye am nañ mun nañoo wax ak yow ñu artu la waaw waaye tànqam lu loolu rek di la seetaan tànqam lu loolu di la seetaan ba problème am ñuy sog a jóg loolu moom teguñ ko fenn mm. doy na waar mu ngi noonu su ko defee loolu moom mooy li gën a fes ci ECOWAS taxawaayam ci Mali Burkina Faso ak Guinée euh, xam naa ne fii ay weer ñu seet fan la ñu mujj ak Guinée ndax junta bi wala soldaar yu fa nekk nañ nangutoo ñoom tamit joxe déet Euh, ne kañ la ñu war a dem elections pour fexe démocratie dellu tamit ci réew Guinée ñu ngi xaar ci loolu waaye bu fekkee nag loolu amul ECOWAS nee nañ leen sanction waaye euh, ñii de Burkina Faso ak euh, Mali fu nekk nii teggi nañ li nga xamante ne daan yu ñu tegoon seen ndodd loolu foog naa ñu bari ñu ngi ko doon xaar léegi nag dañoo dellusiwaat ci réew mi addu ci leneen jafe-jafe surtout ci wàllum. li nga xamante ne mooy essence bu yokk euh, ñi di transport secteur bi àddunañ ci yenn ci driver yi xam naa nañ déggee ci ñoom euh, léegi léegi incha allah ñu dégg ci driver yi chef de garage yi ak surtout euh, client yi sax wax nañ parce que ñu ngi xaar ñoom tamit ñu ngi sàkku nguur gi nag nañ fexe def dara ci li nga xamante ne mooy ci yokkum essence bu bu bu bëri bi ci réew mi ndax nag buñ buñ loolu gannaaw bi nga xamante ne buñ yokkee yokkee paas yàggul sas bi mu ngi yokk yokk yokkaat waaye nañ ànd ak euh, ñoom seen kàddu déglu leen den su ko defee ñu euh, soog a dugal suñ gan euh, waxtaan ak moom ci secteur boobu wala li aju ci loolu ñu yaatal ko bu baax a baax bu ci kajee incha allah yéen tamit ngeen mën a joxee seen xalaat ak seen gis-gis ci lu ñoo waxtaanee. Now, uh, Gambian commercial drivers have called on the government to immediately address the repeated occurring price increment of fuel in the country. Now, they query that it was just recently when the government increased the pump price without increasing the transportation fee. And um, yeah, let's hear from the uh, some of the drivers. And um, yeah, of course, the commuters as well, what they have been saying. nga doo ko jàng several years amanke bii meta ka doo ko jàng more than ten years plus um, so natale one day so because driver lege den tere ke encaissé after nga gara so regulating di so gara so ku jama den tere ka tamade so kabin mboro so ko so driver e complet do ne ko joko pour uh, nga tanda bodia na member sol pour ne diam ka tana ko gasol dala fatale so nga kuma fo passeport so barka bi e fo ne nga ga jamme nan ke ko absolutely ndani kokona ikarip ikakomplo na karipo ndelia ni report nda fangara bo bal kome mokili nga vone kome ngaso dala fara nga ma isi pulunga report kana onga complain na kola so altara ke alnata andala na fana important bato ah uh, nyinga so lafa abe ken always because nsa fono amount ikakere two or three times but wo make na ko drive bi bona pass me tendency ala fa bukala fa drive mostly ni ke aldanda me kadangolto because abe tamo momento na kere fa continue ta atel man nakanda ngini ka nganna hakilo dala ala hakilo di mon tan tan fo tan ku ko mena kan luwa man tan be para ka defi gol na de traffic ko kono so nge fo ngara so de right now ngara so all over the garage is empty taxi mo bundo atjan so right now leka bodo traffic la ka dafa do ko fa ka tayo ste kana ka bu ka do ko so akoy mul batande absolute la mol stop la dal so nara ni be fewo ko no mol dal ye kandi nyola fo fra sa kunda mai fo kula ko nyin kono daga daga be important la bar ngal kono daga daga affaire bi dafa yombul na so gazar bi ñun dem bëgg ñaan government bi ni ñu dimbalé lu nekkon 55 légui moy 73 dalasi so ñun da nga gis na dañoo daw beesoo na pour ñu am fa dalasi sa problème la so na gaay tra ñu dimbalé ñu so man loolu la bëgg ñaan government bi suñu da fay ba ay man dama lore ñaar di ñaar wol la ko mo batani ba kay ente fa na da jinde say driver na sa fa na da tala because no ta ko mo batani ba kay ayal dol bije bulo me ko ben so paso ko kolya do bije kaju so biya fo government biya fo adam bora ay paso da jindi ay fo fana jindi so o santol ma ko eno do mandin ah so ko isal nyaatu fo ko be ko kolya rin salbay saw ani le saw fana ko mol batan le so everything be ko kolya rin ko be ko kolya rin dunia be ko kolya rin la yajel so on tawol sama min fala gasulo la la fanya mantol fego anon tu mando tam fana mbolo to modol ya prokesha make ma ko so nana ta ka sera anon nga kala mu ko nyin non saba nyawt ya la num fula man fe man complain man fe hane se nga paso mu da nga mu tawol so se nana nana ka saba a se nyana ko mon ma la tu to union no fana ma ko ban dal man pre ka step ta wita union or, anybody else na nyaronkol so mfana malo nyala ano nin mfelandi right now fa ndafon jaro si anda nyana kada gaso sama ano nin komba klo nyama bomba tan la so stilo bi esa borita fen sotola so en sa min feno comme ye mol ma ko era tumando do was nin komba paso la fala mina son ko kala nun katu wala kelora ana man wa man jaru wala a tonya tonya diamo wasiala moratiyo jama balbe ko faham and ma fa ita faham la da barata easy la uh, because ne ajibe e gasulo san 20 liter doron doron 1450 or 1005 and intilo mume ida ka 2000 na solo 2005 na dia ta 3000 so amana kuma bika diana ka kole ara baka so ndal fon nim runda fon si ko dan nina moto tiyole negotiate ni wanda ata benna because aba kole ala baka la driver wax nañ client yi wax nañ am chef de garage yi sax wax nañ su ko ñu ne union ñu far ñanta di am la so that's why we bring the union guys here to tell us what do they make of this recent development in the fuel uh, sector, especially the recent uh, price increment as far as uh, fuel is concerned, not only in the Gambia, across the world, but especially here in the Gambia, it has been a concern, uh, and it has been frequently increasing. So uh, what, what's, what's their position on that? So moo tax ñu am dalal ki nga xamante président bu transport union di Umar Sise, ñu bari gën ko xamee Balla ñu waxtaan ak moom drive fay wax nañ te moom lañ si secteur bi waaye yenn ci client yi tamit wax nañ jafe-jafe yi paas nañ yokku nañ léegi nag bu essence yi yokku yokkuwaat ñoom am nañ liñ daxar d'accord ak nguur gi waaye loolu lépp nañ ci ñëw euh, yes balaa moon ñang di ñëw ak maa ci lofin ma bàyyi président mu nuyoo président nuyu ne la baax naka naka suba si ah, suba si ñu ngi fii rek euh, nuyu naa euh, nuyu moo ñang mm-hmm. ku ma ku fonk la nag. Mm. <laughs> su ma ko lay déglu suma <laughs> <laughs> suma sista bi. Mm. Ah, di nuyu staff am man of di ah, Africa TV. Mm. Ah, kontaan naa trop teewaat fii. waxtaanee lu soxal askan bi. particularly this year comme ni trafe ngoye diamo siyara baake yo mbaɗde mbakane yes um, dafa am lu xew mooy essence bi mu ngi yokk yokk yokk ñu gis ne bu yàggul la ngeen nangutoo ak euh, nguuri Gambia pour yokk paas bi gannaaw négociation yu bari gannaaw bi ngeen jógee bëggoon strike négocier ba nguur gi nangu ci loolu fu mu nekk nii foog naa ne am na li ngeen nangutoo woon ak euh, nguur gi li aju ci wàllum essence bu yokku ak yokkum paas balaa ñu ñëw si loolu force as ku jiite commercial drivers ci réew mi euh, lan ngay lan mooy sa évaluation wala tey boo doon def jàngat analyse ci situation bi ci driver yi lu ñoo dund transport secteur bi ak fuel bu yokk naka la ko driver yi nekk di dundee ak jamono fu mu toll. Ah, jërëjëf amadu ah, lu ma si bëggoon njëkk a wax mooy. waaw dama disappoint trop. si nguur Gambia through the Ministry of Finance. waxoon na la dinaa ko waxaat. Mhm. Ah, dañ passé léegi Gambia di xëy rek ne si pétrole si ñu ne la fuel yokk na doo mën a xam lan mooy bopp ak génn bi. Mhm. loolu government loolu la war a. njëkk a dàqalu sauf lu ñëw wax dafa doon dëgg because ñu ne fu ne fu ñoo jëndee fu mooy wol market foofu la seere on a sànga bot balaa muy yokk nekku ne dafay xeere yokk so recently government su expecté yokk fuel by next month on the first lay expecté yokk fuel uh-huh. according to their their their their model of operandi kon right now kon before on the 25th government xam na standam bi mm. mbaa moom dina yokk fuel oo du ko yokk mm-hmm. a come out ask askan not only drivers the population of the Gambia gasoil will move a yokk bis nangam lii la because you have na already that's why they have the experts Luta tax mu people need to know but lii man I don't even believe this this is not mënuloo imagine from 50 64 to 73 or 74 because over 73 something that is almost 74 ñun say seetee sub region fee. seen Gambia more gën a seer fuel The Gambia Sénégal is 15 dollars different 16 dollars different per litre. waaw. 16 dollars is different. Mali eh, Guinée Bissau. dëgg boo xam ne nii si fitna la nekk am na 5 dollars different Mali am na 43 dollars different Guinée Conakry di same. amuñ port. Yeah, I guess yi nga def Yeah, wala am na gëstu mën naa la Mali Sénégal ñu ngi 58 today The average of the Gambian truckers ñëpp jënduñu fii gasoil léegi Sénégal la koy def loo saf rafet ñu. ok lan nga lan moo tax nga foog ne nguur gi bu ñoo yokk da ngay jékki-jékki rek dem ci petrol station bi nga xam ne yokk na waaye bu dee wàññi la dañ koy def statement annonce ne ñëpp ñu ngi wàññi loolu ñu bari ñu ngi gis ni loolu. mooy ne dem bëgg play main nit ñi lu ma bëgg ñun ñi xam ne crude fuel muy crude oil muy jàll. si mhm. wàllu market bi. Mhm. xam nga soo bugg soo soo fekkee da nga bëgg a mislead nit ñi. Mhm. doo bëgg wax exact bi ko soo waxee ne mun na la mun li nga wax amut lii ak lii moo fa nekk. boo dëgg-dëgg as minister they are technocrats on the you know in terms of financial issues war nga mën a ñëw out du general public xamal ne gas yooyu mu ne lii ak lii ak lii moo si war a yokk ba su government yokk ak from you know you know you know you know from 64 to 73 70 almost 74 because it's almost 50 percent increment so for that being the case su loolu amee end of the day day have ne kan mooy sonn the end users mooy the population the uh-huh. Gambians Do driver de ñun loo ñu teg ñu teg ko askan Yeah. xam nga lu lu ñu teg ñu tegal leen ko li may ci lu wàllu te warta demee noonu. warta demee noonu. bi ko government moo war a yërëm moo tax su ma déggee nii ñoo ne driver day war a yërëm askan sa papa su la yërëmul ku la yërëm mooy borom kër gi su la yërëmul kan moo la war a yërëm kuy luwaas na la yërëm nguur moo ñu war a njëkk a yërëm nit ñi ñun di nga amoon agreement ak government ba aw last proposition strike uh-huh. ñu nangatoo nangatoo leer nañ uh-huh. mooy ne mënuñ teg suñu paas bi si kaw fuyal because fuel mën naa yokk tey mën naa wàññi. bon léegi lu ñu def ñu pot stratégie ñu ne fuel su yokkee 20 percent dina réviser pass bi ñu yokk su wàññee 20 pour ñu réviser pass ñu wàññi ko. ñu ñu d' in in those days fuel was 52 dollars yi 23 butut ñu d' ko mooy baseline bi tey fuel muy 73 dollars 73 butut that is over 40 percent increment not 20 on a 40 percent nga bi dee pass muy fa. nga driver mu maintain lu moo mën a ji naka la koy mën a ji si naka. te depuis boobu ba léegi gaa yi waxuñu leen dara. because bu fuel yokkee bi dem ba si aga 61. Mm-hmm. bind na la leen lu ñu waxoon jot na kon nan toogaat ñu xool lii ba dëgg dëgg still gisuñ si daal dégguñu ñun bind na la leen remind am na lu ñu d'accord. ndu mm-hmm. jot na nañ toog ñu waxtaan ñu put en house in order yokkaat ko yokkaat ko ak yéen. so last one bi soo ko seetee it's almost eight dollars. Mm-hmm. Tobaski by now, everybody mungi crying that you know, um, average of Gambians are Muslims. active yi moo tax su ma drive ma nañ muñ because Tabaski la nekk am na yoo ni mun loo ko fasal jamono bi soo ko dee nga yéen askan bi exactement waaw ñu ñëwee waxtaan ñun ñun nangu ne binda binda ministre pour fàttali bon xam nga tamit yëf yi yaa ngi wax ministre of finance of course am nañ ci wàll but stakeholders itam because stakeholders ñoom ñoo ci bokk ministre of transport petroleum Euh, yenn transport secteur bi ak consumer protection am na stakeholders ñoom ñoo ñoom ñoo bokk yëf yi nekk benn ministre ñoom ñoo war a détermine ni price bi yokk nag ma foog ci li ma jàpp ñu jékki-jékki ko est ce que ñooñu yeneen stakeholders tamit nekkuñ di seetaan kon wala amul ñi nga xamante ñoom ñoo téye loxo nguur gi di ko wañaar parce que am na ñuy yëngu ci pétrole bi ñoom tamit buñ demee indi bu ñoo jaay te xëj na te am na fu ñoo téye nguur gi lii la ñoo jaay impose lañ ko pour nguur gi tamit duñ mun a résister. Amadou Gambia dafa daw yaram trop. Euh, dina wo dinaa wax li nu yàgg na ko di wax. Mhm. am nañ ministry of petroleum. waaw but in term of the fuel issues man gisuma si seen participation. Hmm? man dama fiil ne. waaw as Gambia. as it you know unionist. Hmm. the ministry of petroleum ñoo war a con ministry of petroleum ñoo war a control the fuel. waaw man loolu laa foog. but that's not the case. the fuel mu ngi determined by ministry of finance. waaw. nu ma ne nu ma feel ne. Hmm. the petrol ñoo amee expertise. on that aspect en terms of energy is concerned but man musuma leen gis man ba léegi am just asking question to the minister of finance uh, minister of finance nañu leeral lu tax finance war control fe. benn ñaareel di soo fu ñoo wax finance minister of finance na dugga but ñun si recent fare increment ju ma la gis finance I remember in 2021 this talk na minister of transport as far as transport is uh, concerned uh-huh. toog na ñu ne leen dañ bëgg a ngeen set up a committee comme di wax na ne mooy gestu mbiri fuyeen suy yokka pour ñu mën a une di de general public particularly drivers uh-huh. and consumers fuyeel de li fii ak fii la ñu nepp ay nit lañ lu make seen suñ ko déggee xam ko ñu kam nga fuyeel suy yokk ñu diagnose ko ñu xam lan moo ko waral so that we can proper inform our members uh-huh. and secondly soo fekkee comité boo mënta am nañ come out you because you have a social media platform you have a radio TV stations ngeen press release nga mu ngi yoon lii ak lii ak lii moo ko waral ba man lu ma d'accord tey lu ñëw yokka doo si make sense moo tax dañ koy nëbbu suñ ko nëbbatee dañ ko war a awa askan man lu ma gëm. waaw sëy yokk bi is not realistic. ok ne moom askan war nañu askan bëgg nañu xam. waaw mën ñaa yokk bu ànd ak nobbu est ce que loolu leen dina nekk nobbu bu yàgg parce que ñu ne daanaka ku naan nag man parce que bu yokkee obviously ni dañ ko xam. Hmm. parce que ku dem ci petrol station soo jëndoon sixty ñu ne la seventy something wala seventy something obviously da xam ne fuel bi yokk na léegi. soo déggee soo dégloo président li ma wax dafay dellusiwaat si lu ñu yàgg a jooy ci nguur gi mooy ñàkk a communication ni ñu ko dee def Friday rek ñu ngi ko doon wax fii fa mel ni loolu moo feeñaat ci ci ci kàddu am naa nga jàngatee situation bi ak li nga jég li nga jot a déggaagum ci moom ak fu mbir di toll. dafa yéeme ay man ay agree with Omar <coughs> because man mënu ma understand réew muy doxee nii réew mi mel ni association association sax du doxee nii doo xëy rek wax sa association members yi ne leen <coughs> dañ am meeting foog nga inform Sunday oo oh, Saturday den war a am meeting am ministre finance bu nga am na ni sax recently la new ministre la ñu ngi nit réforme si doxalin ni yi fi amoon mit neen si changes pour gis ne doxalin bi askan bi dañ ko ŋàññoon ba still now loolu moo fi remain because war na si lii Omar lu mu wax is true réew du doxee nii réew lépp loo bugg a wax naa leen fi keroog na la nguur yàlla may na ko ba li war a ñëw xam na ko one month before lu war a ñëw xam na ko wala fifteen or twenty days koo xam yow ñun duñ ko xam ba méngale woon ko sa comme nawet dënn dënn bu war a ñëw da ngaa jékki rek light yëpp dem off automatiquement da ngaa gis rek mu ñëw nga xam ne lii moo tax ñu fay ñoom lu tax ñu am matériel bi boo xam ko nguur noonu la war a mën a xamee luy ñëw ak bu ñëwee luy cost bi mm-hmm. problème bi mooy ne ñàkk mën a wax ak seen askan yokk foyal dafa nekk lu nga xam ne lu sérieux la si réew mm-hmm. bu ko du drive si yëpp parce que askan bu la jiital ñuy méttit bi si ñoom laa dem dégg nga Omar lu mu ko waxee léegi mm-hmm. boo ma tegee lii rek ma teg ko lii rek kan mooy sonn askan bi te ñu ñoo moom nguur ñoo sant nguur mu doxal réew nu mu war a demee. léegi bu yu am waaye not nga dem nga ne leen fuyal comme nu ko Omar waxee dafa war a yokk li bi jógee na si nangam jógee si nangam. adduna bi nangam seen lay rik eh, Ukraine Russie xam naa ne lay foofu dana si bokk waaye tam nag soo gisee lii mu yokk lii ak lii ak lii moo tax parce que nguur xam na li tax lii mu yokk nga tegal ko askan bi du leen betta ba drive doxalin boobu dañ askan bi nanguwuñ ko. te dañ ko condamné loolu président Barrow na wax ministre bi ñu condamné loolu xam nga yëg man foog naa ne sax lii président bi du ko dee yëg because gëwuma ne dina nangu lii moo ñëw one thing waaw bugg naa la ko tuuti before end of this gars yi ñu ngi wax ne fuel dafa la manqué pétrole station xamoon na ne fuel yokk moo tax ñu keep seen seen seen reserve seen stock bi dañ ko keep hmm. bu yow fuel dafa bugg a manqué manqué de dañu xam ne yokkule mooy ñëw soo suñ ko jaay da ta c'est losses fa dem ba te suñ ko jaay am na ci xaalis Perhaps Amgasi almost eight dollars. You see the strategy. Mm-hmm. ñooñu yaayuñu boppam kan moo leen ko wax. dañ koy xam xam nag moo tax before the end of the month ah, gaz bi dafa bëgg a manqué ba government ji ne gaz bi manqué wut. waaw lu nekk si gaz lii moo leen si gannaaw. lii la yokk bi est ce que ñàkk a jox cër askan bi wala yenn stakeholder yu ñu bokkal système bi tamit nekkul ci fesul si seen doxalin. luubal moo ci nekk luubal moo ci nekk because eh, since on the first. the Minister of Finance commencé and prepare boobam ba fi upcoming months kon hmm. before on the 15th, so fekkee ne lu ñu wax mu ci ñoom war nañu status quo of the next month. waaw it's not normal tam. maanaam it li nga jëndoon it seventy something eh, foofu laa bëgg foofu laa bëgg a wax. mooy you ma mooy lu ma parce que ñun ñëpp d'accord nañ Before waaw jékkoon na rumeurs boobu fëy na fa moo manqué. ah amut bi government génne fasane fuyal mu ngi am. Hmm. génne si state waaw ba léegi lu tax mu ngi nëbb ñu ñu ngi ko amut. feeñ na. maam feeñ na lii moo lii la mooy ne. Mm. ay dalasi boobu lañ doon dàqalu ñun tey am nañ ko. bi ko jamono boobu soo soo jaayoo di nga ñàkk ay dalasi man tey soo jaayoo doo ñàkk ay dalasi kon xam nga kon kon am na inside administration ku la ñu informe comme fële foro ko te loolu yëpp coupole yi moo ko waral rek société yi am nañu fuel fu muy nekk ba ñun ñun baadoole yi ñun Gambien si ñun for remi people xamuñ rek ñu ne muy nii ñun su government ne dafa yokk mënu ko mënu ko mënu ko mënu ko faram-fàccal nit ñi di ko I remember in few years ago mm-hmm. su gaz la war a yokk dañ ak lii ak lii war yokk soo ma ne baral dafay jar ten ten ten ten dollar exemple su mun naa ceeg léegi ma xam ne moo am baral ñaar lay mm-hmm. soo loolu la ñoo nëbbu tey Sénégal man ne tey Sénégal lu mu seer ñu ngay jaay mu ngay jaay fifty eight dollars yi tey. litre litre fifty eight dollars yi ñu ngay jaay seventy three point seventy seventy almost seventy four. da nga ne ñu bari ñu ngay jëli foofu loolu nga les troc yu dem Sénégal kenn jëndu fi fuel nga ku fi jënd ku lay jëndee boole ngay ngay ut kon loolu that's government is revenue. of course. gis naa gis na loolu mu ngi am. truck, truck. yëpp lu la wax tey kenn jëndu fi fuel fi so loolu Gambie mu ngay ñàkk millions of dollars. because of the price increase. prices because different bi moo bari sixteen dollars yi par litre xaj na feneen ah? na waaw Bissau Gambie moo gën Bissau ak seen stéréo économie nu stéréo moo a yomb a kon loolu soo demee si boode yi ñooñu. ñu moo gën a Conakry moo gën a yomb a félicité. nag daf may jëlee askan bi nañu bëgg a xam. we need to know. is waaw waaw. nga man Gambie soo ko seetee soppi jon man lu ñu fekki soo ñëw in terme even essential goods si Gambie moo doon yoon a yombale. moo tax ñu ne mooy marché West Afrique waaw tey nag ñu ngi ñàkk marché bi de. situation bi. yee ñu ngee ñàkk marché bi parce que marché bi ma ay fil doon góor because soo nekkee nii nga nekk si secteur bi nga xam lu ci nekk boo ji nga lemee ci dafa yaawul technocrates mm-hmm. fii ñu nii xam ne lu xew yaawul technocrates ñun secteur bi over 20 years ñu nii fa mm-hmm. ku fi yàgg fekk fii nga ñu fekk mm-hmm. yaay si office ba ñu si ground bi ñu ngi fortal information but today we are losing our market because of our poor poor poor management ok Amadou dafa am na la ministry of finance man aw tële let's come out while nit ñi excel mooy. am na loo fi léegi te dafa am ñu ko seet ifin mën nga see boole sa ministre of transport. waaw ministre of fii nañ fexe toog waxtaan nañoo indee solution waaye gisuñu daanaka ba léegi ñoom def nañ fi retreat ñu ne bi tin three months daanaka one month bi dem xanaa ñu ngi xaar ne xëy na a indi solution parce que li nga wax ni lu lu lu la ci réew did research because I'm not in government but we are all ñu ne yëguma ko ah fu ngeen dafa yóbbu ñu ko fa ne su fee su ngeen dafa war a in picture transport nag because ak am na si cër lebe kilo feel yokk fi finance moo di tamit finance kon finance dafa di directly ak fuel operators yi wala business

ja yokk bi du ndawut. ndawut soo fee dalasee tuuti dalasee mën nga ko compromise. Eh, du compromise. du comparantu moo tax xam nañ ko ba di general public bi ministre of transport yokk na ah, yokk. su la nax. nu limité nu the transportation ministre of transport you gonna leave them behind mm-hmm. so in time of trade minister of the key prices. Mm-hmm. waaw ba baal ma tuuti ma ma ñëw bala bala bala balaa ngay laajte eh, ki nga xamante ne moom mooy eh, eh, presse yi ci loolu. because bëgg naa xam tamit ñoom fu mu nekk nii ñu ngi gis mu ngi blame minister of finance te ñoom leen fu mu nekk nii yan concern la secteur transport bi am parce que yéen at the end of tamit gis nga nit ñi commencé leen di di bileem driver si yërëm leen nit ñi parce que xamuñ yéen tamit xëy na li ngeen li cër bi ngeen ci am. joxul lañ ko ci ci ci ci yefi fu mu nekk because da ngeen ci warna tok ngeen waxtaan ngeen jël decision loolu tamit naka ngeen ko euh, fasiyene manager ci sen on level. well xam nga blame moom mm, mm, nit ku nekk sa xalaat nga sa opinion nga me mm-hmm. bon ñun lu ñu xam nañ ko bu baax dama ne ñun nekk ñun business nekk def we register as a commercial. Mm-hmm. we are we are doing business ñu we expect profit. government su su yere mo askanam bi. Mm-hmm. dem jëna fuyel bu seer ñoo jaay ñu ko fu yeer ñu dem ñu ko askan bi fu yeer su fu seer loolu mooy dëgg. léegi da nga fa dafay mel ni yéen da ngeen di gis ni ñale délibéré lañ ko def yéen tamit ngeen defee ko délibéré parce que négociation waxtaan dafa war a am non tuuti moo fa nekk ni jaaykat yi ni jaaykat yi ni essence bi amul sañ-sañ yokka price fekk waxuñ ko ko driver bi tamit noonu la ñàkkee amee sañ-sañ yokka paas te fekk waxuñ ko ko parce que am na fu mu war a sukkandiku waaye fekkee jaaykat essence bi def na jékki-jékki rek yokk yokk waaw te fekk protocole bi wala process bi fu mu war a jaaro fa driver bi tamit mun naa sukkandeeku ba mu tam fu ko ne mu profité yokk paas agriculture bi ko su government ne a yokk paas bi ñu a yëgal mhm. la ñu def waaw askan bi war a xam waajal seen bopp waaw waaw ba léegi ñoo suñu war a yëgal xala ñun ñu askan bi ñu war a ko waaw foofu moom te yokk nañ koy bëri suñu tegee ñu waaw waaw uh-huh. exactement essence bu yokku war nañoo informe nit ñi ne eh, essence dafa manqué ñu mun a xam ne essence dafa manqué driver yi tam mun a xam ne essence dafa manqué parce que ñoom itamit dañoo suñu dañoo yokka seen paas parce que fu mu nekk ñun ñi ma xam ne ñu ngee dugga si moto yi xam nañ si dara dangaa duggati moto fay ten dalasi ëllëg nga dugga moto ñu ne la 20 dalasi la wala 15 dalasi la te wax ma la dara de gis naa ne eh, borom private yi sax ko ñu ngee jooy ah xontuma la commercialiste xam nañu wax ne léegi ñu ne ma yow man est-ce que duma ut bicycle léegi waaw loolu yëpp comme ni ko Omar waxee si askan wi la moo dellu ya, absolutely askan wi ñoom ñoo see ya, sonn ñi nga xam transport eh, public te yaa ngi wax ne ñu ko because Omar moo fi nekk moo tax ñu koo kale ci transport ba essence bu yow ko is beyond that because yaa ngi wax lakkakat mburu bi léegi te gaa yëngat ah yaa ngi wax ñëw kat yi fu nekk seen liggéey générateur lañ dee use nawet tamit mhm. si yéen yoo indi de. nawet di li a pass bi sax we are not going to depend only passengers even the goods. good transport since 2013 bi la yokkut fu mu nekk fa la nekk over ten years ago. te da ngeen a yëngal loolu waaw. loolu foofu foofu ñoom jaa par exemple ñu ngi ñu ñëw si loolu ñu déclare line si ëpp. ok mun a bokk ci waxtaan bi. Euh, ubbi la ñu laan si 233 213 ñu waxtaanee jafe-jafe. ñàkk euh, transport bi waaye tamit essence buy yokk ci réew mi dégg ngeen ni ko yi waxee ñoom yëguñ ci dara te ministre bi dañoo jékka-jékki rek yokk affaire yi daanaka euh, doy na waar daal xam naa ne effet ñi nga xamante ne mooy ñëwkat yi right now dañoo ñi nga xamante ne xëy na nawet la ñoo yaakaar léegi léegi laay dem. Mm. nga war a dem ci sa ci ci ci bi jëndal li nga xamante ne mooy sa essence wala sa gasoil whatever pour liggéey. ñu ngi ci am problème so yooyu yëpp foog ñu waxtaanee ko ku nekk sa gis-gis ñu waxtaanee lan ngeen foog ne noonu la nguur gi war a taxawee wala autorité si pour ñu régler situation bi. moo tax waaw ma wax la balaa moo ñang di wax rek. comme si askan wi la moo delluwaat. waaw waaw waaw askan wi askan wi ñoo see sonn na parce que am na ko nga xam ne mu ngi toog place am fi mu nekk. Mhm. amul fa kuran amul fa naweek nawet générateur la yaakaar pour liggéeyee. Mhm. loolu la moo liggéeyee essence la moo jënda pour mun a yow imaginal benn one litre essence lan la la mun a liggéeyal. yow moo gën a seer. mooy si mooy si ah, à 78 su fekkee ne comme ñaar mais bi fayin la ñaw bi sax waaw su fekkee ne comme ñaw ñawkat bi ngaa wax mu ngi war a ñaw ñaata machine ñoo nekk di daw si biir atelier bi yow généretu boobu noonu nga yaakaar ndax benn wan ni tamit mun na laa yóbbu wan wan awa te teg foog nga foog nga feesal sa tànk bi soo ko amul yow fan nga jëm moo tax li amal wax rek a addi en si askan wi la moo dellu si rek ñoom ñoo see gën a soona léegi yow su fekkee ne ñu ngi yokka um, essence duñ ko announce waaye su wàññi bi jotee dañ ko dee anam. waaw guñ la ko dee yokkee tuuti def fekk ñëpp nelaw lañ. <laughs> xaaji guddi nga yokk booy booy booy wàññi ñëw. ñëw digg nga ñëw rek ñu ne la ne yokku na. te duñ ko yokkee taay boobu ay 12 yow nga eew rek ñu ne yokku na. yokku te fekk yokku bi sa waxuñ ci dara loolu tamit lu lu doy waar léegi. mu ne am na loo bëgg a yokk. waaw lu ma maanaam maanaam ci léegi ñoom lan lay. a yokk comme Omar soo déggee lu mu wax. waaw daanaka tey foyel bu nekk di jaay sebinti foo nii mm. man lu ma d'accordoon si ñoo yokk ñu ne si gaal bi ñëw bu jeexee dinañ yokk nangam kon nga yëgle ñoom ñu denc kon loolu dafa mel ni am na am na diil bu nekk si diggante ñoom am na ah, te fii nga kabadu yi lii problème yi Gambie bi kabadu ministre bu ñëw itam da ko faa fekk te da you will ci te lii is mu ngi fa bu ko dafa war a leer dafa war a leer seconde la def ko very serious period boo xam ne nit ñaa ngi war a julli ci provinces bu duutoon yokkute essence sax paas rek pour dem Basse wala julli ji Foto o julli ji Saalum dafa métti nga ñëwaat yokku isaan yokku teg it dalasi julli moom waaw booy dem booy dem julli because driver dañoo sóoraale bu ñu demee solo mooy problème daanaka double wala triple lañ lay mhm. caaj waaye loolu ñu ngi waajal julli gaa yokka ci li nga xamante ne mooy problème dina métti si askan bi waaw ko defee nag ñu commencé driver ngaw di ngaw te driver yi day ñàkk yërmande day ñàkk fekk du ñoom de moon ñang fan yii ma doon ñuy bi Amat Bah Johnson laa jëlee taxi mu ne mu ngi dem Latrikunda fii ma dugga mu ne pass bi 20 20 la de a ah, nga fekk maa ngi yaakamte maa ngi leen ma ne ko ok waaye beneen mu taxawaat beneen jigéen dugga mu ne ko ne pass bi 20 la te ba jigéen bi ne ko loolu kañ la mu ne ko pass bi da loolu la soko ko mënul na of course wa mu wàcce. ah naka lay def mu wàcce. parce que nekul ne ñëpp ñoko xam nga lan parce que waajalul ko. waaw xëy na bu jëlon bu jëlé tenen ten ci fenen dugal ko fofu bu démé lim lim lim parce que moom ngi jaxal wa imam bi mo waajal ko ko lay waajal ko ko me xëy rek yokku waaw moy indi so loolu la gaay xey rek yokku da nga ngaa xëy sekole mooy ne man légui ni man gisu légui na laaj Omar because ñu bari dañ dew wa government def dee subsidise xaw ma

waaw gis nga yëpp bi mhm. am na ñu tuddee netting lot of money ok ah, li ñu dee wax insider trading mhm. daf dee happen parce que amee sa stock yi fuel mhm. nga jëndee ko si te jeexagut waaw dina am ku laa wax ne la ma ne samedi dinañ yokk price nga téye ko so su samedi jotee ñu yokka nga door di si jaay mi ci xaalis bu bare bare bare bare li réalité la lu xew la te gars yi finance xam nañ ci dara so drivers yi pour nga jox leen notice daf dee difficult because soo leen waxee rek ñi la dinañ def holding dinañ binta jaaykati essence yi ne essence amul temps yi sax gasoil dafa xaloon a ñaata sax waaw so loolu laay wax ñu ne xaw ma na la ko gars yi di managé ba nga xam ne nga doo toore eew yu suba rek ne yokka nga de pare li ñoo yokkata dafa fekk stock bi already mu ngi fa. Mhm. te stock boobu dañ koo jënda price du price yi yokka bi lañ ko jëndee. xaw ma na understand li ma waxee. bu baax ñu ngi lay dégg bu baax. Mhm. Mhm. waaw so dafa am insider dealing bu ko nekk daal diggante gars yi nag ah ngeen baalal ma wax ji du rafet de waaye gars yi finance yi. non affaire kay foog ñu laal responsible xam nañ dinañ yokk nangam price bis nangam so ñu soo amee information boobu xaalis bu bëri lañ ci nekk xaalis bu bëree bëri sax dëgg la baax na jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw mooy li nga doon wax sànq rek stock bi nga xamante ne xam nga tamit ji yi li nga xamante ne ko order two three months ago example mu ngi ci réew mi nga jékki-jékki rek yow li nga koy order nga jékki yow yokka price boobu nga nga jaayaat loolu noonu ci fekk yow li nga dencoon ngay jaay nga ci loolu price mooy ñàkk communication bu moo wax te loolu yëpp soo demee jëmpeeg si fii jënd na one month ago root yokuna nga lu mu jëndee woon mën sugu lu mu jëndee woon ten dalasi loo jaay loolu laa jaayee fifty dalasi because li ñoo lay moy ne boy jëndi jëndiwaat lolu nga fa fekk way du yo bu because yow li nga jënda jënd war lo ko jaay price lu yokka so control bi amul so li ta mo tam moo xew foyal bu nekk di jaay ni war lu mëna a ko won price bu ñu yokk 8 dollars te ñu ko jaay te moy deal bu gaay def ni rek naan 8 yokku ci 8 dollars naan dafa manké so this is the problem moon ña dafa laaj eh, moon ña eh, moon ña dafa laajee de so mbaa government dañoo subsidy dégg lañ ci am ba man bi lee góob ma góob ñoo ngi subsidié fuel. gisuloo firnde. nañ ma waxal na ma nañ ma ko waxal dégg rek dégg joxe naa sama jabar déy dépense foon taw nga yem ci. Hmm. gisuma li nga toog. ba tey ñoom ñeneen ñàkk nañ ci daanaka lu ëpp billion dollars. gis nga du xam ne évident. non c'est statement. non ma ne ah, su ma ah. toogee fi ma ne su ma jëlee sama jabar dépense two thousand loo ci man. dara doo añ sama kër gi. xamoo loolu laa joxe joxe ma ko. waaw ah. soo seen seen statement boobu war a askan bi foo la war a bokk. ko su ko nobee nag kon ma mun ma ko gëm nun kenn mun ma ko loo nag subsidié naa seen dendance nañ ma ko wan fan la fan na ko defee ñaar la jëndee fuel bi crude bi naka nga ko transformé naka la bi ak fii ma woo kos bi. ñu soo foofu du ñu si wuloo. waaw toog rek jég jég leen toog rek dugal ñaata milliard man loolu gëmma ko nun kenn mun ma ko gëmloo nag. waaw dafaa dellusiwaat si benn bi mooy kon communication bi moom nguur gi daal dañu am problème. communication man gëm naa ne man man man. parce que ministre yi tamit dafa mel ni xam nga lu bari ñu ngi wax ne nguur gi ñu ngi def yenn yu baax because mos naa déglu benn ci kilifa ñu ngi wax affaire ci paas bu seer bi sax because ñu ne sorry du paas bi euh, lu ñoo dundin bu seer bi ñu ne tey li li nguur gi subsidise par exemple taxe luñ ci ñàkk ci maalo sukkur diwlin dañ ko def free tax buñ la tey bu ñu waxoon nit ñi ñaata la ci nguur gi ñàkk. kono nit ñi dañuy wax ne nguur gi defuñ dara waye ñi ko yor duñ ci wax waxuñ ci wax ne nguur gi hejna hejna xëj na ben ben lañ ci wax so yoyu may problème nga wax lu ci bon mhm. ah wax ku lay deglu moom mo la ëpp no mën na def analyse mën na analyse mën na def research ok wa bal ma jël Mr Kinte mu ngi ci laayar bi dañ su ko defé ñu ñëwa hello salaamaaleykum alaykum waaleykum alaykum wa alaykum wa rahmatullah ah na ngeen def nag jaam jaama rek alhamdulilah ah, rafetlu naa suñu waxtaan bi daal jërëjëf mhm. waaw fu mu nekk nii comme affaire yi yokk essence bi. waaw. ah man daal lu ma gis daal gars yi a waxtaan ñu d'accord daal. Mhm. waaw parce que ci loolu dafa client yi ñun ñun nga xam ne ñun bokk ci la def ñu dee mhm. waaw bu ko tout ça ma wax la loolu. waaw yow soo jógee biir kaa maa ngay ñëw. Mhm. ñu ne la sa bokkatu la ñu am. o ñani e sañu la lamin lañoo en so bo boobu noonu pati lamin bi ak pati sabo foto bi te yow yaa den war dem mm-hmm. so da nga gis ne yow su fekkee ne eh amulo xaalis bu bari mm-hmm. so naka nga mun a eggee ah bo affaire la de so loolu loolu gars den dañ wara waxtan a daal ñu ñu d'accord ci daal mm-hmm. nga gis ne dina dimbale driver yi dina dimbale passenger dina dimbale yépp daal ak ak lifin eh, defini bokkat est-ce que fooguloo ne bu bu essence bi yokkoo driver yeeguñ ci dara xëy na loolu moo tax ñuy ñuy def yu mel noonu tamit pour am ci dara ñoom tamit ci lu ñuy ci lu ñuy liggéey. ah waaw waaye waaye waxtaan waxtaanee ñu ne leen. Mhm. Eh, dinañ dinañ nangu ko nangu ko daal. am solution. am solution nga xam ne du du du du gëstu boo lifin yi daal. Mhm, dëgg la sa njëf yi ak waaw. Mhm, waaw jërëjëf. waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf Mr Kinte ñu ngi lay jaajëfal bu baax mu ngi ñoo koolee Latrikunda Jaman thank you very much ci wax na lu am solo eh, loolu sax dina ma dina ma balaa ñoo wax ci léegi yéen lan ngeen fas yéene def na da ngeen di war a dellu continuer waxtaan bi ndax wax na foog ngi waxtaan ñu jéem a indi ay solution waaye wax na fi benn mbir mooy dog dog pass yi indi nga système fii dafa mel ni da ngeen système bi féel na de président xam nga naka xam nga naka la demee gasul bàyyi yokk rek nu muy demee sax laa xamul man man wax naa ñu business la ñu def maan ah. di nga def business bi de système bi nguur pour harmonize. de président. non xam nga xam nga du fi ñëw fi di. ko bu fi la de man suma part of the committee. la lu ko just to protect the welfare of members. pour of mhm. emphasize yow ba su ma gisee muy bëgg a ñëw rek si man njaboot bi nag. ah moom eh, eh, ma kii nag. ma taxaw seetlu oh, ma taxaw seetlu de. bi ko tey d' accord nañu ak nguur yi nañ nañ nañ indi système bi pour ñu mën a wàññi nii ñu def si suuf yi ñooñu ñu ngi toog gaas di ko yokk rek di ko yokk rek nit ñi ma fa la ñu tibbee. léegi loolu moo moo tax système bi. nermé système bi mooy ne système dafa war a dafa war a indi balance jiim client dafa am jàmm ñu ñu am jàmm ba ñu amagum jàmm li muy kellu since day since day one since agreement bi. ok baal ma jël Mr Cissé mu ngi am next call hello salaamaaleykum sa doom baay. salaamaaleykum maa ngi def. jaama rek alhamdulilah. waaw yaa ngi si jàmm bu baax. sant yàlla bu baax. Ah, a mhm, ñu ngi lay déglu. waaw Fatick Seck bu may def ah, ñaari side yëpp man laay nekk di play. Mhm. because soo ñëwee si Bokomel. waaw. dëgg dëgg kenn mënut a understand bi because boo xoolee ak ah, government bi. duñ mm-hmm. jël feedback askan bi. alors. Mm-hmm. waaw ñu ngi laa dégg bu baax ñu ngi laa dégg. waaw duñ jël bi parce que ñoom ci luñ mënut a nekk daal daf koy mel ni ci lëndëm lay nekk ak askan bi daal askan bi duñ jël dégg ci ñoom dara daal. Mm-hmm. askan bi tamit luñ leen nekk di jooy tamit di ko jëmale ci ñoom tamit duñ jël dégg benn response bu nga am ne daf koy jógee si ñoom tamit. waaye boo ñëwee tamit ci saa yi di drive yi tamit either kuréel bi yokk na yokkul tamit sometimes dañ dee toog toog rek ñoom ñu yokk seen paas yi especially at night time mm-hmm. Omar mooy noonu dina dina ko dégga even su ko gisul sax dina ko dégga because sometimes driver yi dañ dee ba guddi rek nga xam ne time boobu dem bi jege na rek ñu commencé yokka paas yokka bu nga xamante ni yow sa dem rek ngay gis ala comme nga fay paas boobu su hmm. su daf dee yokka yokka bu nga xamante jël town sax moo la dee génnal pour nga pour nga ki ah, jël paas boobu noonu hmm, hmm. ak jamono buñ toll nii ci julli bi tamit ñu dee dem si op bi tamit pass bi léegi comme su nekkee two da ngaa gis ne julli bi su ñëwee ba mu des two days gars yi dañ ko def ba ay four hundred yoo noonu fekk pass bi two hundred dem fa add another two hundred soo leen waxee lu ñuy complain mooy dañ lay wax ne ñoom suñ tamit pour ñëwaat bi duñ mën a am client buñ dee hmm. so bëgg naa Omar mu defal ñu leeral ci loolu lu tax driver di def loolu noonu tamit ok yokku yokku Ah, waaw driver yi comme time julli bi si jotee den de double pass bi comme su nekkee la den si dee add another ok ok si time julli ok ok waaw baax na ah, jërëjëf waaw mooy li ma doon wax <laughs> dégg nga li ma waaw dañoo yóbbu waaw moom mun naa ko firnde waaw even suñu discussion with government and the relevant stakeholders mm-hmm. ñoo ngi ki leen ko represent si meeting boobu mm-hmm. suñu agreement with government doo capture ko ji nga events mm-hmm. au lieu bi mooy op supply bi. soo amee rek passe bi moom mënuloo ko contrôle. ñu even di cop di agreement capture na ko. time boobu pour time bi nga ñu ñu ko la passé 250 doo ko fa gis de because one way traffic la. dañ koy double kay. waaw oo ñu triple ko sax waaw bi foo wala tout loolu ma su event ñëwee suñu agreement ak Kaba bu ko event bi moo am activé moo mooy ne demande bi moo am supply bi. am na lu tax lii am kon nekkul ne lu war a am waxtu bu nekk. ñu yëpp gis nañ ko marché lu tax man man may concern is mhm. ah ah Gambia fii every day soo xewul ci dafa am luy ceeñ. waaw ifin nawet bi luy nañ ko. yokk nañ ko mhm. bala duy wax foofu de bala ñun la muy teelu ñun ñoo amee économique bi. Mhm. ñun seen suñ suñ toogee la crise crise la. ci dëkk bi bal ñu ngi mën a pour mën a dem. liggéey liggéey ngeen yor bu nga def. Ah, ñu toog si kër gi. waaw léegi léegi léegi ndax ñu ñu ngoon ci ci ci système bu bees bi dafa mel ni comme yokku-yokk yi moo tax am na ñu ma doon wax am na ñu ma doon wax ne sax yow ni leen Umar mu leeral la moo tax seen pami système bi doxul yokku-yokku pax yi moom waxoon dañ ko bëgg a wàññi wala ñu génnee ko waaye dafa mel ni teela waalo gana gën a ah boo nekkee West Pile dañ lay indi Béthio-Cistern ñu ne la man Latrikunda Tabo Koto nga soog nag ñëw kon ne dem Costa Rhodes waaw President, <laughs> I'm not very. No, Travis, no, Travis, Travis, and no, strategist. No, let me, let me, no, let me tell you one thing. Let me tell you one thing. Mon yam mom tamit, mom bo mom system bo musu selli fi nak. Say. No, li ci li ci li ci nek moy, dafa am you ci involve. Waaw. Ñun dañ def trial. Wax na vrai trial la. Dañ ci jangat. Am na opinion yu amé. Jonam back to the, the, the authorities pour ñu xool mbir bi waaye li ma jël wante ñun business la def. waaw baal ma ñu jël Mr Brown mu ngi ci mu ngi ci line bi hello salaamaaleykum. waaw hello Amadou. yes. waaw ñu ngi leen gërëm ñu ngi leen a sant. jërëjëf waay. programme bi important na trop. thank you so much. waaw. Mhm. maa ngi gërëm tamit Bala. ok waaw waaw moom su ma gis-gis mooy. waaw. yi nga government dañu am problème. Mhm. driver dañu am problème ñii both side leen. ok you understand dafa mel ni ñoom yëpp six and nine lañ rek. na you understand ñoom dañoo toog jubbi leen government waa ñoom sax am nañ problème. parce mhm. que man foog ma ne Bala sa gars yi driver yi seen driver yi nii dañ ko dee mën a déglu because moom lu mu dee wax ak lu dee happen on the ground is different. Mm-hmm. different issue la dee nekka ba mm-hmm. pare government tamit suñ dee xëy rek ñuy yokk gasoil yi day fay tamit luñ dee xam li fi luñ dee xalaat mooy ñoom seen moto yi ñoom ñoo ko moom lu leen neex loolu la ñoo caag. su mm-hmm. ko man maa moom suma àll lu ma neex laay caaj su la neexee nga wàcca you understand so dëkk bi fii lu nit ku nekk rek lu la neex nga dee def fii système bi amul contrôle soo seen njiit yi sax duñu leen dee faale. waaw man dama gis ne yëpp fu mu dee mooy from the top. You understand? Because affaire si dañ ko dee from the top du dee am ay njiit dañ dee am ay njiit yoo xam ne sax duñ leen dee faale man noonu laa ko gisee. ok fii dëkk bi lu nekk rek waaye lu la neex rek noonu nga dee def so ñun ñoo dee sonal suñ boppam ñun suñ man Gambien di government bi government bi dee play some part there ah, waaye ñun tamit citizen yi tamit ñun tamit we play very important part in the society nu moo demee nii no. so ñun ñooy gën a sonal suñ bopp rek at the end of the day fii la ñoo nekk di blame government government government government at the end of the day do government they have their own problem yaa na ñoom tamit fu mu nekk nii too much corruption moo fu ma nekk yëpp yëpp corruption la système bi is all corrupt from top to bottom everything is corrupt. Mhm. so at the end of the day driver yi tamit ñoom tamit they are they are taking the same step. yaa na man li suma moto la lu ma neex laay def su leen neexee ngeen dugal su leen neexee soo ñun Gambia dañu ñooy soona oo tax fu mu nekk nii everybody is trying to get your car to drive whatever you wanna yoon bi yëpp lii la. parce que fu mu nekk nii kenn gomatu toog ay ñetti paas ay ñeneenti paas ah bon yow naka la ah dëkk ku nekk da ngaa sa segg wala nga wut sa rayda at the end of the day ñoom dañoo nekk di daw si yoon bi du ñu am dara du ko moto yi ñooy bari fi soo gisee moto yi bari yooyu la mhm. ku xëy nga jënd sa moto rek because loolu la trafic bi lu fa dee daw is is ah yow booy nga bëgg a spend booy transport ay hundred dalasi two hundred dalasi loolu loolu foo ah, ah yàlla jàppale anyway thank you you thank you ci dem nañoo ne fu mu conclure moy rew mi dafa jaxaso parce que parce que mu ne lu neex way def lo rew dina doxé non dimba rek dimba rek bang ci bang wax ak ñeen lu lañ ma wax mu ne Gambie dafa melni amul contrôle li lu neex way def est ce que nak loolu war na. festival bi war naa seetaan yëf ah, mu ne mu ne lu def euh, government dañ corrupt dañ ama government dañ bon ñun ñu bon en ba léegi ci dama ko wax wala government dama ci wax. waaw ci government na leen sa mbos dama ko wax suma liggéey suma liggéey man la ma suma pour mu xam ko. pour bi drive man ku koy laal man nga laal man loolu mooy suma liggéey pour ma leeral ko wax bi. man suma liggéey amul benn liggéey si Gambie how to protect the welfare drivers. that's all. fexe tamit ñu tegu ci yoon président. moo tax ma daal su ma nee protect the welfare wax li naan mbir bi. leen aar fam. waaw daf leen duut baaraam. laaj ma suma yelef laaj ma suma yelef. acca go ahead waaw ama garage. Mhm. ama système. ama régulation. ama traffic congestion. ama road safety ama loo bëgg ma def xanaa malaaka la. jinne la. demal senegal amna amuñ garage amul rôle sooy amul amul parking amul amul amul you know parking and dropping point amul système ñu suma ko amul yow jox ma nga ma def nak la ko defee. suma la déggé moy transport secteur bi organisé wu. yag na yag na ko kan fii ballu amako ko fan ballu amako ko fan kon man damay taxaw ku bëgg la driver ma jakara yow. because we are we know the problem we we are calling the check check nañ am ba transport regulations. nga nga nga. Nggak nga nga baal ma jël suñu last call bi Mr Diallo ci laaj bi hello salaamaaleykum yaa eh, bisa jalan juga lain lay nuyu baax. waaw maa man wax mooy seen comme non comme fekkee ne ah da ngeen waaw côté populi. day laaj on li. waaw ne tax nañ ci naan sorry bisa Diallo hello hello. yaa man dama famille ñun ci ñu repeat ak yeen fa da benn période nga la am euh, line bi leerul te bëgg nañoo dégg nga wax ñu mun si fekkee dañ ci war react wala ci ñu bu baax nga baal ñu nga try waat xëy na ñu jël nga nekk suñu <laughs> waaw laal laal na ko moom nga laal waaw waaw waaye ndax driver yi tamit yow sa driver yi ndax danga dee waxtaan ak ñoom parce que léegi-léegi driver yi parce que waxoon nañ fi ne am na loi yi nga xam ne moom ngeen di teg si dog-dog paas yi nii léegi ñëw ne fuel moo doxul waaw fuel nga ñëw ne fuel bu yokk moo tax loolu amaat te fekka loolu bu mu doon continuer balaa yokk essence bi nii di ñëw parce que ñun xam nañ si dara dañoo dugg moto every dafa mel ni yéen tamit da ngeen feel side boobu noonu. yow ak sa njaboot gi waaye monsieur Diallo delluwaat nga tontu bu bul bul bul fàtte laajte bi de waaw monsieur Diallo hello salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw ñu ñu ngi lay ñu ngi la waaw. exact ah, ma ne seen bi fële ko mën a repeat ak yéen. waaw because I I believe in the benefit from this program waaye duñ ko mën a wàcc because Okay, during working hours. Okay, pour ñu repeat programme bi. Okay. Exactly. Am ko lu ma yokk waxtaan rek mooy. ci man bu collègue Brown uh, Wow. This dem ci very very important. Mm-hmm. ok lii take problème mu fa I can take it to both sides both the drivers and uh, government. Mm-hmm. waa kër ci saa kee balaa wax suñu njaboot yi naa commencé ci borom kër. so we can say the problem mu the root problem mu government one day, uh, when it comes to this uh, transportation, it's a direct link between government and drivers. Mm -hmm. The problem is because the government won't take the family. But you know, now number one, in the drivers, less than our drivers, they have an offer. Why problem in many communes, we didn't say why we didn't have an option because follow the motor. Mm-hmm. You understand? From driver option, we got a more government in a Nanga Muningo. From the Brown, we're a little bit. You know, dog, dog, jël la fii yóbbu la fii wàcce la jël la fii yóbbu la fii wàcce la loolu moo faa nekk rek. Mhm. te imagine ku nga xam ne yaa ngi liggéey di jël salaire two thousand dollars ci every month yow nga war a ko ci paat at the end of la xaar where are you going to survive. waaw ci thousand te da ngaa mel ni comme góor nga am. léegi su fekkee ni ko ne mu ngi fay tas daal ci FPD loolu génne ko si twenty twenty four working days dara nga def dara. bi ñu ko rek ñëwaagul tàkkumaa la ñëwaagul. institution so man duma gis moy moy comme mm-hmm. transport union ñom ci ñoo xolé gox na mi ngay natta community dañu natta community dañ wara ñom mo lem ku drive, yang am dom bu dem ci am nga jarba bu dem ci ko am nga yaay bu dem dem liggéey sori daaw na sa so duñ fofu wara xol okay wa suñ ko xolé nak gox na def na nga dama def na nga problème dafa dafa am so man duma gis fokk am foog waxtaan am. te waxtaan boobu noonu foog ku nekk mu mm-hmm. uh, jërëjëf wax na mooy waxtaan dafa mel ni waxtaan dafa war a am te waxtaan amul léegi tontul maalum la laaj xam naa ñu jeexal ak lan ngeen fas yéene def situation bi bu fekkee ne ceeñu fi ay weeks ay weer ci kanam bot force lim la laaj ci leeralal foofu. maamu ne maamu ne dafa am luñ indi. waaw dafa am comme euh, mooy route lancée. waaw wax naa ko fii mooy ne. Mm-hmm. trial la. they am halal is a good practice. Yeah. Because the nakalmuna, you know, you know, in the balance gym yeah. between the drivers and the commuters. Mm. When the pass we sure okay, uh, govern your pass we okay, commuters what not gonna enjoy. Wow. But pass we luta mu yoka mo ne lol mo kon de yoka. Ko lol ina deme gis. Mm-hmm. Ñun def na sun finance am na driver yu ko a jël.

ba lébi cël lébi cël lébi cël ibi transport directeur sax. la bokk de non badi hari highway yoo xam nga loolu mooy maanaam ñoo surtout la bokk Westfield Tabakoto right now traffic is so congested than before due to rainy two lu waa mooy ne ah, ah, ah, système bi government ñoo war a provide système ñun du ñun government ñoo war a provide système sa sa bi sax dafa am government lu amula ko faan nooy doxalee ñun su fekkee government dafa sideline transport faalewu ko ba su yëga kaasoo di ko tàggoo du ko yëgal ah sëñ bi buñ bëlee woon dara. ok plan of action lan la. what we are doing Assane now. Mm-hmm. we are engaging the government. through our line minister, Minister of Transport, mm-hmm. for this subject matter. Okay. They gas you're up to 21 dollars to 50 butot mm mm-hmm. since our last agreement. Yeah. Per liter, la la wahde. Okay. Liter bunega, you bunta kola government. You're going to see 20, 21 dollars 50 butot. Ngana driver mu manage loan, naka koy manage. How comes? mu war a ko manage bu lañ gis this last eight dalasi we are taking a of line of the fifty two dalasi it's now it's twenty one dalasi fifty butul loolu moo ci yokk par litre nga driver moom mu continuer manage loolu tey bàyyi ray lu ñu d'accord ak government soo fekkee ne taxawal seen taxawaay tey ga paas bi war naa yokk ñaari yoon so su government bëgguñ ko waa yokk yokku kon su suñu yokk ab gaz yooyu yëgaluñu ko suñu driver tamit wala nendoo alfudi de kon tey askan bi war a xam situation bi il faut ñu ñun wiyee njëg ba bi dindi période intervalle lan mooy xew tey tobaski bàyyi ñëw ma jënd gasoil bu cher dugg si trafic bu xaat transport yoon bu bon nga dama ma ma ko naka laa ko compromise naka si naka ji jooma jooma kon lu may wax askan mi mooy ne let's try to you know you collaborate drivers xam ne we are all doing business ji nga ñun maam eh, Amadou ji nga ñun nekkul ne dawal ko da nga am am famille comme li ngeen amee famille mooy du driver boo ak secteur bu nekk la bu du affaire boo secteur bu nekk la am na ku bon am na ku baax bal ñun su ñëwaat dañoo généralise bi mooy ne time bi il faut ñu harmonise ñu understand exactly lan moo xew. dafa da nga am serious, you know you know système su place wala ni mhm. faible ken kon nañ understand but what we are as official of the union. we are engaging the government through minister of transport. soo fekkee ne gisuñ si for what? Mhm. let me tell you once I'm a leader leading organisation by across the country. Mhm. I will call in a national committee we sit and discuss. any output outcome. I'll come back to Limoges staff. How how how soon loolu negotiation a xaar continuer xam nga ñun as a union. within ñu may. because ñu bari ñu ngi tiit. situation bi bu dafa am lu ñu may. we are under Labour Act. as a union as a press groups. dañoo suñu amee lu ñu xam lay concern. dañoo raise government mm-hmm. su respond nag. dina leen dina leen notification. so why I for now. strike soo fekkee surtout ñu la compté government bu ko ñëw dicté pour ñu liggéey Alfoury. waaw duñ jënd essence bu di ko mayee de mooy mooy da bàyyi fo naaw daal nañ. loolu xalaat strike ko defoo famille lu nekk suñu toggee mën na ko def. ma xam naa su ma toggee government even you committee si ngeen bokk ci mën naa leen convaincre pour pass yokk soo fekkee Gambie lañ gis de. waaw lañ gis de awul convaincre ñu yokkawee ko pass. léegi ñàkk a dem mooy solution bi mooy comme essence bi yokku na pass bi lool la de because hanga su ne yokk na dalasi wax bal yokk na over twenty one dalasi fifty wutut yokk paas xaju si palita de yow yow si palita bu paas bi yokkee last time ak dikk ba tey gasul yokk na twenty one dalasi fifty wutut yokk paas xaju na sama xaju si sa sa digg naa yàlla su fekkee ne su si fuel bi bi si fuel yéen soo leen di yokk paas a wax askan moo tax ma la ñun ñu ngi kon ñun xam na procédures moo tax bu ñu yokkee ñu consi ñu ko ñu binda. te yokka bi sax su government bañee ñu paas yu yokku ñun government ñoo paas yu liggéey ñun moo ba ñun duñ mën a yokk paas suñu boppam. government mënu ko wax ba su government bañee askan bi bañ ngeen bañ. ñu tam li moom ñu. fu mu nekk nii yéen seen position mooy. yokk a paas ngeen di ngeen di sàkku. waaw yokk a paas ngeen di bu loolu nag amul. ngeen bi ko gouvernement mënut a yokk gaz yooyu essence am. waaw mënu ko yokk ñun tam mënu may suñu alal. léegi foog naa maa loolu leer na. position transport union mooy. ñu ay dem protest yëpp di buy ko. déedéet foofu nekkul solution sax parce que ñu toog. non non non dama la ne. ñun dañoo indi government. waaw ñun li mooy suñu agenda. waaw government indi stakeholders ñu jël leen agenda bi. waaw bu ñu ko jëndee. soo fekk su ñu ko jëndee. macha allah wala xam nga. jënd nag ñu delluwaat suñu delluwaat suñu néeg xamal ne daal. du ma lay wax nii nekk ngay mooy strike moo wota ko loolu mooy capacité dina ko jënd. ma balaa nga tàggatoo ma fay na <laughs> man daal lu ma bëgg a euh, wax rek mooy ne euh, gën leen a waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy stakeholders yi ñu seen naka la ñoo réglé situation yi parce que dëkk bi métti na ñëpp dañ sonna dañ tàyyi dañ damma lu ko gars yi dee waxee man yaakaar naa ne fu ñoo dellu si mooy indi fi ay sareet di nit ñi bañ a dugga te foog loolu moo gën a healthy dawal say dawal say foo koy dawalee mooy problème bi yoon bi foo koy dawalee yow tànk say sa problème pour nga def ba ba suba waaw man daal man moom mm-hmm. man moom man man bileemu fu bileemu ma driver si man kilifa driver yi laa bileem because am na si lu nga xam ne nguur dafa am sañ-sañ war a dof war a doxal kilifteefam war a doxal soo kooku nag bu ko deful keneen lu dal askan bi si ndodd kooku leen koo bées moom la moom la jërëjëf jërëjëf la jox la am naa ba next time insha allah mi ngi xaar yaa incha allah comme na ko waxee rek. Mm-hmm. li war trafic ñu ngi julli si julli bi. Mm-hmm. na ku nekk def ndànk. exactement xamal ne tay activité na bari. Mm-hmm. nan def dank rek xam nga jama jàmm soriwut. ndànk ndànk rek te gis naa si yoon bi lu ma ñëw ñëw lu ma lu ma lu ma soxal. no su ma ko waxee rek ah du ma wàcc. dama gis xale bu jàll tale bi national route. les antouilles gisuma yaayam gisuma yaayam xale bu ndaw. yàlla moo koy oyofal sax. kooku pa kon waajuram daal war a bàyyi seen xel la. seen doom yi trop surtout bu nekk two mu mm. cross national route loolu yéeme kon loolu dafa daw yaram kon nan téye suñu yi sant naa leen gërëm naa leen gërëm su boobaa nag su da ngeen jëkkal ñu thank jërëjëf prési xam naa ne sax bëggoon naa ñu wax ci tuktuk yi ñëwaat nañ ci tali bi lan mooy seen gis-gis waaye loolu nañ ko nañ ko def beneen yoon ah thank you dégg naa na ay foreigners leen ko jox ñoo ko contrôle something waaye beneen yoon dinañ si gën parce que yooyu dañ ko war a lijjanti waaw affaire yi dafa mm-hmm. kenn xamut waaye jërë ngeen jëf incha allah ñu ne nañ continuer di waxtaan réew mi nañ waxtaan jafe-jafe bari nañ euh, président bi wax na vice président bi wax na waaye gamben si daanaka gisaguñ lu tegu ci lu ñu war a jàpp ci lu war a régler situation bi te nag ah affaire yi ngi noonu daal waaye xam naa suba nañ ci gën a dellusiwaat yaatal ko jërë ngeen jëfati ci ni ngeen ñu ànd ak ñun saa su ne ci jotaay bi kontaan nañ ci lool surtout ñu call contribution incha allah jox leen rendez-vous bu ci yàlla àndee suba ci beneen édition Good Morning Africa fii ci Africa TV fii ak ñu ñaanal leen kandaloon jàmm di leen wax jërë ngeen jëfati